Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Class TV to learn English with Mr. tey nag dañuy continuer ak yéen ci leçon bu ama am solo muy baat yi compliqué waaye incha allah dinañu ko defal ci yoon bu gën a yomb ba nga comprendre ko mooy lan kañ la ñuy jëfandikoo sow do nga xam ne contraire bi mooy neither do wala kañ lañuy jëfandikoo so did nga xam ne contraire bi mooy neither did ci yoon bu yomb yomb ci technique boo xam ne boo ko toppee doo ci am benn problème incha allah ok benn tab benn kañ lañ koy jëfandikoo nan lañ ko war a jëfandikoo ak yan la ñu war a setantal balaa ñu koy jëfandikoo lan moo tax muy ñëw ak bu ñëwee lan la ñuy mën a dimbalee kan moo koy jëfandikoo incha allah dinañ ko leeral benn. par benn ba nga man koo def. ñu am lu am solo lu ñu leeral bala ñuy dugg nga déglu bu baax balaa nga mën a jëfandikoo sawdu wala najdu wala balaa nga ko comprendre maanaam xam lañ lañ ci jublu bàyyil xel ñeent yi wala ñett yi bi ci njëkk mooy xoolal ba xam phrase bi ban temps la nekk. pass pass bi ci present la nekk wala ci past wala ci future benn boo war a seet moo ngi noonu beneen bi mooy nga xool ne waaw man verbe bi nekk ci phrase bi sax ndax moom ci type ordinary verbe bi la bokk nga xool wala ndax ci modal verbe bi la bokk wala ndax ci auxiliary bi la bokk beneen bi ngay sàmmanteeg mooy nga ne waaw phrase bi xam naa ban temps la xam naa tim ne verbe bi ban type la waaye ndax dafay saxal wala dafay dàq. boo xamee ñett yi ba pare nag di nga mën xam boo fekkee ñi bind ko sawdu lan lañ si jublu wala najdadu bu fekkente nit yow bëgg nga bindal sa bopp sawdu wala najdadu di nga sàmmanteeg yi bala nga ko def lii nag lañ lay waxal ci vidéo bi wala ci leçon bi nan ngay def ba comprendre ko ak nan ngay def ba mën ko defal sa bopp wala boo gisee ñu bind ko nga xam ne lii lañ si jublu si jëfandikoo sawdu ak najdadu mu ànd ak. lépp li nga xam ne mooy personal pronoun yi ci anglais léegi boo fekkee ñu bind benn phrase wala yow nga bëgg ma wax ne ma nit ñu nekk Sénégal dañuy làkk wolof nga ne ma people in Sénégal speak wolof man ma nekk Sénégal bëgg la wax na leen même man mii damay làkk wolof léegi ma jàngat phrase bi balaa ma jëfandikoo so do wala neither do damay xool phrase bi ban verbe laa ci am. verbe bi mu ci gis mooy to speak mooy speak ci ban type la bokk ci yenn verbe la bokk ci ordinary verb la kon xamaale naa ne verbe bi ci ordinary verb la bokk benn ñaareel ma xool ban temps la speak ci present la ndax past mooy spoke ñaar kon xam naa ne ci ordinary verb la bokk en même temps temps bi xam naa ne present simple la ñetteel moo xool wax ci yow da dàq wala danga saxal da nga ni people in Sénégal speak wolof ma xool gis ma fi lenn luy tegtale ne négative la mooy day dàq du noow du don't du didn't du not gisuma ci gisuma ci dara loo xam ne day tegtale ne lii dafay dàq wax ji ma ne kon da saxal ndax da nga ne nit ñi nekk Sénégal dañuy wax wolof bu boobaa lay doog a jëfandikoo so do waaye du ma jëfandikoo neither do dina ñu àgg si nice video kañ lañ koy jëfandikoo kon boo ne ma people in Sénégal speak wolof ma bëgg la wax man mii damay làkk wolof dama naan la so do I so do I gooku lu mu remplace mooy day gàttal wax ji du ma fa nekk ne la yes and me also I live in Sénégal I am like people in Sénégal I speak wolof non non dama naan wala ma naan la I am Senegalese déedéet dama naan la so do I so do mooy tegtal mi man mii damay làkk wolof comme ni ko waa Sénégal di làkkee loolu mooy temps bi xam naa ko xam naa wax ñi fu mu jublu xam naa tim ban verbe la ñuy jëfandikoo mais est-ce que si so do I yem déedéet pour ma wax la ne fekk ba it maanaam dañuy commencé aay ba it dañ koy jëfandikoo ci anglais. bu doon dañoo bëgg a wax ne ñun tamit comme people comme nit ñi nekk Sénégal lan la ñuy wax so do we wax ji jeex yow tamit comme ñu nekk Sénégal rek da ngay làkk wolof comme ñu dama naan la so do you mm-hmm. tamit de comme nit nekk Sénégal ndax dañuy làkk wolof ñu bitam lan lay wax so do they léegi bu ma bëgg wax ne moom tamit exemple koo xam ne góor la muy Abdou ma bëgg a wax ne Abdou tamit comme ñi nekk Sénégal rek. moom itam day làkk wolof dama la so does he bàyyi xel bu baax so does he ndax ba ñuy conjugué verbe to dañu doon wax I do we do you do they do waaye he does she does it does mooy tolloo ak so does Abdou. nit ki noonu bu doon jigéen boo bëgg a wax ne moom itam day làkk anglais comme nit ñu nekk Sénégal lay wax so does she ndax mooy tolloog Fatou comme so does faatu bu doon mbir boo xam ne nekkul nit mu bëgg a wax ne moom itam comme ni ñu nekk Sénégal nan la ñuy def dama naan la so does it mooy moom itam noonu déglu bu baax li ma wax njëkk may def so do I ba ci so does it dama jàngat ñett yi mooy xam naa ne verbe bi ci ordinary verbe bi la bokk xam naa ne temps bi temps présent la xam naa ne wax ji dàqul dafa saxal. kon noonu la ñu liggéeyee côté boobu bu ñu amee beneen exemple maanaam nag ñu yóbbu ko ci past lan laa bëgg a wax dafa am ku laaj benn laaj kenn tontuwul wala kenn tontu sax nga bëgg mu wax ne ma pourtant ñoom de xamoon nañu ko de ñoom xamoon nañu tontu bi nga ne ma they knew the mooy ñoom xamoon nañu tontu bi ma bëgg la wax ne même man mi xamoon naa ko au dama naan la yes and me also I knew the answer but I didn't answer dama naan la so did I so did I léegi njëkk may tontu may def man so wala neither wala neither damay xol phrase bi da nga ne they knew the answer mooy ñoom xamoon nañu tontu bi ma ne waaw temps bi de past la li ko waral mooy to know maanaam know past bi mooy new kon xam naa ne temps bi past la en même temps know dafa bokk ci ordinary boobu. am naa si ñaari xam-xam ñetteel bi mooy xam naa ne da ngay saxal ndax gisuma ci lenn luy jeexantal ne dafay dàq gisuma fi didn't gisuma fi nor gisuma fi not gisum gisuma fi don't kon ñett yooyu yëpp yi mu doon seet gis naa ko xam naa ne verbe bi ordinary verb la ndax to la bàyyee ko xam naa ne temps bi past la ndax niiw laa gis waaye xam naa ne wax ji day saxal ndax gisuma benn jeexantal luy dàq ok ma doog indi nag so please lan laa ci war a dolli soo ci présent bi soow du la ñu amoon te xam nga ne du présent bi te xam nga ne verbe bi présent mooy du past bi mooy did kon did bi rek lay jëfandikoo dama naan so did I so did I mooy tekki booba man tamit xamoon naa tontu bi maanaam yes and me also I knew the answer but I didn't answer mooy xamoon naa tontu bi waaye tontu wu ko woon gis nga so did I nga ne ma foo sukkandiku ci dit gi lu tax defoo ko du mën la damay sukkandiku ci France bi nga njëkk wax ci temps bi mu nekk lay sukkandiku jëfandikoo bopp tuddu bi tëddu past bi mooy dit dama naan sow dit ay ma bëgg wax ne ñun xamoon nañu ko de dama naan sow dit wii ma bëgg wax ne yow xamoon nga tontu bi dama naan la sow dit you ma bëgg wax ne ñoom ñi fi nekkul pour pourtant ñoom dañ fee nekkul rek mais xamoon nañu tontu bi de dama naan la soo di dayee bu dee genn góor walla benn jigéen walla loo xam ne nekkul nit foofu tim nga def attention ndax soow daas ngay wax wala soow daasant wala soow diit wala soow diit waaw xamoon nga ne temps yi ci la form bu nga xam ne lañuy war a jël ñoom ñett ñooñ kese am waaye bu dee ci temps bi yépp a koy bokkule dama naan la soo diit hii mooy moom itam xamoon na tontu bi. bu dee jigéen mën ne la sow so did she moom itam xamoon na tontu bi bu dee loo xam ne nekkul nit mën ne la sow di it loolu xamoon na tontu bi bàyyi xel bu baax dama ne lii ni mooy bu ñuy jëfandikoo so did ci past bi li ñu si jublu nag mooy tontu bu gàtt wane ne li phrase bu njëkk bi nga wax ñun tamit d'accord nañu ne ñun tamit suñ tolluwaay loolu la woon wala man walla yow wala ñoom wala keneen mais ñaari tib yi ñu amaale yëpp yi ñu rombale baal xel ne amul dàq moo tax mu gis soow diw soow du wala sow dit ci past bi soow do plus benn si yi I we you they sow dance plus benn si ñett yi he she it sow dit plus yëpp I we you they he loolu mooy jàngat bi njëkk ñu dem ci bu fekkente ne beneen côté bi la maanaam dañoo bëgg dàq da bëgg wax ne non ñoom du jàng anglais they don't learn English they don't learn English ñoom du jàng anglais léegi ma war a jëfandikoo so wala neither wala balaa ma jëfandikoo ñaar damay jàngat phrase ba pare. dama naan FRAPP yi moom lan la ñu wax they don't learn English ñoom bu ñu jàng anglais ma ne learn de xam naa ne moom ci ordinary verb la bokk xam naa ne tim temps bi temps présent la mais lii problème mooy wax ji dafay saxal wala dafay dàq ma xool ndax gis naa fa don't walla not walla isn't wala does not ma ne waaw bii de fekk naa fi don't they don't learn English ñoom du ñu jàng anglais wala jànguñu anglais kon su ma bëgg tont tontu du ma wax so do I dama naan nag dafa ndànk su ma bëgg a tontu ne man tamit jànguma anglais lay doog jëfandikoo neither do I kon do I gi du dañ waaye soo gi ak neither gi moo am wuute ci saxal bi nga indi soow ci dàq bi nga indi neither ok ma bëgg wax ne man tamit du ma jàng anglais in me also I don't learn English like them gis nga duma jàng anglais ci yoon bu gàtt dama naan neither do I mooy man tamit duma jàng kanaa léegi li des dina war a yomb ci yow boo sukkandikoo ci li njëkkoon liggéey bu dee ñun la dama naan neither do we bu dee yow la neither do you bu dee ñu fi nekkul la neither do they bu dee moom góor gu fi nekkul la neither does he bu dee jigéen gu fi nekkul la neither does she bu dee loo xam ne nekkul nit nekkul fi ma ne neither does it loolu mooy temps bi nag présent la de waaye wax ji moo nekk ci négatif gis nga bu fekkee dañoo dem ci past bi nga bëgg a wax ne ñoom de. ah ñoom xamuñu woon loolu de they didn't know that ñoom xamuñ la woo woon loolu they didn't know that ñoom xamuñ woon loolu ma bëgg a wax ne man tamit seen tolluwaay fa laa toll man tamit xamuma ko woon lu ma wax neither do I wala so do I dama ne neither did I mooy man tamit xamuma ko woon yow ñun tamit xamuñ ko woon neither did we yow tamit xamoo ko woon neither did you ñoom tamit xamuñ ko woon neither did moom ku góor googu tamit xamul koon woon neither did he bul fàtte ne did yëpp a ko bokk bu dee ku jigéen ki nga ne neither dit she bu dee ku loo xam ne nekkul fi nga ne neither did it loolu mooy ni ñu jëfandikoo neither do ak so do wala neither dit ak sow did ci ñaar yooyu nga bàyyi xel bu baax lañu ci wax balaa nga ko def. wala balaa nga mën a comprendre li ñu si jublu xoolal phrase bi ko jiitu loo si jàngat mooy ñett yi temps bi wax ji maanaam ban baat la ñu jëfandikoo ci ban type la nekk ban type la nekk en même temps ndax dañuy saxal wala dañuy dàq bu dee dañuy saxal soo du mun ngay indi ci présent bu dee dañuy saxal ci past soo dit ngay indi bu dee dañuy dàq ci présent neither do ngay indi bu dee dañuy dàq ci past nice dit ngay indi loolu mooy li nga xam ne lañu jëfandikoo ñaari baat yi di sawdu wala nice du sawdit waaye nice dit ok fii la ñuy yem nag ci leçon bi ndax nga mën a ko comprendre bu baax a baax dafa nekk loo xam ne loo am am solo la te dañ koy jëfandikoo lu bari ci anglais wala dañ koy jëfandikoo lu bari ci bind bi ti mu also waaye ci wax bi nag lay gën a bari